arbitre daa ngi wax ak ñoom Lat Dior Joe na ba yegg suuf Joe Lion mbokk yi moo ngem moo bari Lat Dior eh yaa ñaaw <laughs> Lat ñaaw na Joe Lion cokkaas na léegi Lat Dior lool Lat Dior

Lat Dior Joe Lion Joe Lion Lat Dior Joe Lion xale yi jàppante nañu ñoom ñaar ku ci nekk jàpp nga ne tekk di déglu Joe Lion da ko bëgg a taxabal waaye taxabal ba ñëwul Joe Lion Lat Dior Joe Lion Lat Dior Lion Lat Dior Joe Lion Lat Dior bëgg na koo songale Lat Dior jàpp na Lat Dior jàpp na Joe jàpp na Lac Dior da ko bëgg a lu mu ko bëgg def Lac Dior Zo Lion Lac Dior Zo Lion moo ngi koy biij Lac Dior Zo Lion Zo door na léegi Lac Dior dooraat

Lac de Guiers ñooy dóor nu mu koy def bëtt na ko génn nañu Lac am na benn avertissement arbitre bi sifflé na Lac Dior Joe Lion xale yaa ngi noonu ci diggi géew bi ci diggante Lac Dior ak Joe Lion Lac Dior am na léegi benn avertissement Joe Lion Lac Dior xeex nañu Joe Lion door na les gauche droite Joe Lion ni mu xeexee baaxoo jël na ko jàppante nañu waaye nit ki moo kii booy xeex booy dóor da nga koy xool waaye gëmu di dóor gëm naa ne ku yootu dal te kuubul na dóor boo ko encaissé la la tey fekk du la neex Lat Dior Zo Lion ee eh, Zo Lion nga di kaw na kaw ni ngay baaxul war na la ndomba est dina ca génn Lat Lac Dior Joe Lion war na na ndomb Joe Lion war na na ndomb dóor ma dóor penalty la dina ko dugal am dóor Lac Dior Joe Lion daan na ko Lac Dior daan na waaw